mbokk yi laaj bi Walf Quotidien laaj tey jii moom la ñuy ibbee yéenekaay yi waaw ñay bii xàll mbabal doom jaa tax Macky kan lay xàllal ba tax mu bëgg a téye kii di Ousmane Sonko téye xalifa téye Karim Wade la waaja doon wax rek naan atum 2024 ki naroo doon président Sénégal day forde day doon koo xam ni kenn du xam kan la naxta punkal yépp Macky da leen a nar a téye di Karim Khalifa ak Sonko comme na mu tàmm di ko defee naxta ci atum 2012 Abdoulaye Wade mooy ki fi nekkoon de waaye gisoon nañ Niass gis Idi gis Tanor waaye daal kii di président Macky Sall moo mujj doon président de la république ci kenn xaarul woon Walf Quotidien ne ki nar a doon président mun na doon ku kenn mënta xaar ndaxte moom Macky sax naam bu sampee ndëndëm askan wi mën nañ kaa sanctionné kon Macky kan lay xalal ak kan lay ibbil yoon wi ba tax mi tee ay adversaire yi gën a ngande bokk na ca ñooñu Ousmane Sonko su mel ni ku koy dëggal naan Macky waxoon na fi nii day neenal opposition bi réduire leen à sa simple expression la namu ci atum moom daal wujju la bëggul rawatina bu dee wujj woo xam ne wa am fulla la am fayda am taxawaay te askan wi bëgg ko waaye loolu duñu ko seetaan de ci yéeni kaay bi di l'info Déthié Fall bokk ci Yewwi Askan ne woon na ay militant am ak ay sympathisant am ñi ko safoo ngir ñu jàppale Ousmane Sonko ba li gaay namu ci moom du mën a am wax ji wax na ko ci yéeni kaay boobilee di Babacar Ndiaye jiite jeunesse patriotique ci mbiri Sweet Beauté moom patriote le di ànd ak Ousmane Sonko nee na Ousmane Sonko dem procès ñoom duñ ci ànd benn yoon ndaxte dem procès boobile leen rek la ci Macky Sall jublu teqatal ko ba atum 2024 du mën a doon candidat mu ne ndaw yi passé fii ànd ak Ousmane Sonko dinañ taxaw jatu ñu soccet am fulla ak fayda gu mat sëkk ci kanamu kii di président Macky Sall ba la mu namm ci Ousmane Sonko ngir bañ bëgg kaa teqatal loolu du am li am nag ki téere kii di Cheikh Yérim Seck bi yéeni kaay bi di l'info dellusiwaat na ci ci tuuma yoo xam ne ak yàq deru góor ñi rek di Cheikh Yérim jëloon xalimam namm ko nekk woon ko ci téeréem bi mu tuddee Macky Sall ci kanamu taarix moom Macky Sall moom mi ne nag sañ na lu ne waaye itam mën na lu ne yéeni kaay bi di Walf Quotidien Macky da doon nëbba tuddee kii di Marine Le Pen doon kooku xam ne dafa bañ nit ku ñuul ak a gan ca France siis loolu Macky Sall dalal na ko de ci ab audience Marine Le Pen ci audience boobu la Macky Sall doon nëbb nee na Macky Sall c'est un homme charmant Mimi Touré ne ko boobu la audience moom mënu ko ak gëm ni Macky Sall sañ naa danal kii di Marine Le Pen Mimi Touré ak njiitu FRAPP dégage di kii di Guy Marius déglu nan boobilee audience audience boobilee bari ay laaj loolu ni ko yéenekaay bi di 24 heures waxee yéenekaay bi di sat ni Sénégal RD Congo ci dimanche lan fa yéene jongante jongante boobu ñëpp di ko xaar mu doon tëgg ndënd ak semmin ndax benn naqadi benn lu mooy benn at moo ko desee ci bopp CNG moom Bira Sène yéenekaay bi di sunu làmb ne moom mi fi wutu Aliou Sarr juróom-ñetti weer kepp moo ko desee ci bopp CNG ndaxte mission bi Bira seen amee woon juróom-ñetti weer moo tee mu jeex te bu jeexee mën nañ fi teg ab fédération sénégalaise de lutte ndaxte daan yi daan bëri doon na lu leen naqadi te ñi ko mere bari nan Grand Yoff mbooloo ak Fass Benno Dibu Zarko ak kii di Ada Fass ginnaaw seen combat bi leen ajee un an teg ci dagg leen xaalis bu bari sumb nañu ab xare jëmee ko ci CNG. jërëjëf Omar Bun Xattaab Gueye jaajëfal Famara Diédhiou